waaye mbokk yi ñu fi fekk mën na ne Youssou Ndour lañ fi fekk maa ngi fi ak Maguette Seck maa ngi fi ay Siteu maa ngi fekk ñeneen ñi nga xamante ni démb ñoo andi woon Youssou Ndour pour mu ñëw jàmmaarloo ak ki nga xamante ni mooy Thiatou Yoff maa ngi Maguette Seck Maguette Seck nuyu naa la. waaw maa lay fay. di la ziar di nuyu monde entier di nuyu làmb. Mm-hmm. waaw di masawu coono Youssou. Mm-hmm. di ko wax ne ko làmb noonu la waaw. Ah, di ko masawu di ko wax ne làmb noonu la mais démb dañoo ñëw ci làmb ji. gis leen ngeen jaabante teg seen cumukaay. Youssou Ndour toog te concentré wu ci làmb ji. tekk tekkaal bi lu ko waraloon. waaw mais làmb ji moo ko laaj rek xam nga làmb moom. ku ci nekk li ngay yaaxoon ni ngay tojee say mbootu jinax rek nga def. waaw làmb ji pare pare nañ ko pare ko niñ ko war a pare mais bisu ndam bisu defet ak bisu ndam moom du bokk quoi. waaw yàlla noonu la ko dogalee ñu ngi sant yàlla bu baax dem defaru juwaat balaa ngaa ñëw ci balaa kenn moo ñu yàqal waxuñu kenn moo tax ñu am ndam foofu yëpp dafa sooy ñëwaguma foofu dama dama bëgg ñëw ci làmb ji gis nañ leen ngeen toog seen cumbukaay concentré wu li mm-hmm. ngeen wax bàyyiwul seen jaabante bàyyiwul ñu ñëw ci tuus bi mm-hmm. ñu ñëw ci tuus bi waaw ñu ñëw ci tuus bi ñu gis ngeen tuus Youssou Ndour tuus su neex nekk ci forme mm-hmm. ñu ci bàyyi na Youssou Ndour tey kenn jàpp ko ci mystique naka ngeen waajee ak tuus bi waaw waaw loolu lu ñuy pare lu ñu répété rek mm. teg ko ci acc xëy na démb daal Youssou bu daanoon sax du baax quoi parce que Youssou ni mu animé làmb ji gérer làmb ji su xëy na noonu rek la mënoon demee quoi waaw noonu la mënoon demee Youssou teg na li liñ ko war a wax liñ ko wax def na ko la entraîné na liggéey na li Youssou démb bi mu sumee ko ku gis Youssou xam ni Youssou liggéey na mais nag xam nga suñu borom moom xam nga su soxlaa keneen ku soxla ñàkk noonu la dem. Mhm. su soxlaa keneen ku soxla ñàkk. Mhm. dañoo gis démb. Mhm. Euh, dañ koy ñaanal yàlla suuf oyof ci kawam. Père Balla bi mu gaañoo ak léegi. démb la nekk deuxième sortie Youssou. mais ñu gis ñu ci bari nee nañu woon. combat bi combat Youssou la. képp champion bu nekk géej waaye nga xamante ne Père Balla lebaloon na la. démb danga nga ñëw taxaw ki nga xamante ni mooy Youssou. mais démb ñu ci bari gisuñu waa géejuwaay lan moo waral loolu. waa non loolu ñoom la rek man de per Père la moo tax ma di ko taxaw. Youssou man du ma moroomam. du ma moroomam du ma ànd ak moom. Mhm. formé. génn ma ci lépp loo xamante ni lu bon la dugal ma ci lu baax ba àdduna tey jii fu ma taxaw ñu xam ni kii moom mooy diw loolu maa ngi koy sante Père Balla di ko ci gërëm tey jii su ko neexoon loolu yëpp du ko ci fekk mais carrière na école de lutte carrière ay nit yoo xamante ni fu ñu taxaw tey ñu xam nit ñi nit ñi kat ensemble dañoo bokk ci waaye wala dañoo bokk Sénégal loolu moom def na ko mm-hmm. ba tax na man loolu per baal la amul lenn lu ma ko fayee parce que dem na doom ji mu fi baay muy Youssou nduur ñu bokk li ñuy yëngu man de dinaa ko jàppale comme ni ma ko mën a jàppale dinaa ci sonn dinaa ko jàppale parce que su rakk la jox ma cër déggal ma dinaa ci sonn ak képp koo xam ñoo bokk igri ak képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo géejawaay ma war a mën a def ci yow lu baax dinaa ko def waaw Youssou lii du guleet quoi sama diggante man nag moom lii di su gulet. Euh, du ma ne sa diggante yow ak moom ndax gis na ni nga ko taxawoo. mais dama ne waa Géejawaay. lan moo tax démb gisuñu leen. waa ñooñu fay ñu naar bi xoromam uh-huh. fay ñu naar bi xoromam. képp koo xamante ni nekk nga mbër rek isambloo nekk géejawaay rek xam nga. Mm-hmm. géejawaay suñu demee ba di ko tudd Père Balla moo tax. Mm-hmm. ndax moo créé ay nit yu ñuy tudd yu ñu xam. Mm-hmm. moo tax ñuy tudd géejawaay. kon képp koo xamante ni assemblement te yuusu nag yéene wu dundul ak kenn loo xamante ni ma la day am bis nga koy seetaan. mais seen diggante est-ce na. moo ngi géej waaye. non seen di seen diggante yuusu open press ku am mu dem. làmb ku am mu dem. kon yuusu yuusu daal xam nga lii nag lu war a am la si diggante ma ci diggan ci ci ci jaar jaaru yuusu mais yuusu lii du méritam yaru na amul poroblème loo ko digal mu def ko lii nag lu yàlla dogal la lu war a am la. am na yuusu ñi nga xoolaat beneen semaine bu yuusu mën a jaar pour nekk champion waaw te ci loolu la ñuy nekk mais làmb ji amoon démb ñun fàtte nañ mhm. mais ñi nga xool tamit yuusu beneen buntu la ban buntu la mën a jaaraat pour li mu ñàkkoon mu rattrapé ko. ma ñëw ci digg géew bi ñu gis butéel yi bari woon. gàllaa ji daanaka bi ngeen di dugg di commencé rek. abit sifle na war na leen temps bi ngeen amoon ci digg géew bi jeex na. wàccaay li bari butéel yi bari lan la lan ma war doon làmb ji moo ko laajoon rek. joo xamante ni ñaari xale ñooy bëri ku ci daan génn. ku ci daan déclenché. loolu noonu làmb jooju waru yomb. yuusu nu mu indee butéel yu bëri noonu la caatu yoof indee butéel yu bëri. Mhm. mais làmb ji moo noonu la waroon demee deme na ko. waaw làmb ji noonu la waroon demee deme na ko ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi di ñaanal per Balla fee mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge di ñaanal képp koo xamante ni jiitu nga di ñaanal Youssou tamit làmb defet mun a ñàkk si mbër mais yàlla na fa gëj waaw làmb nag moo bindoo nii. Euh, ñu ci bàyyi nee nañ woon. Mhm. bëre bi moo arrangé Youssou. xeex bi da ko waroon a daw. billaay mais keroog déglu moom ma ñëw. waaw keroog open press Youssou Ndour. Mhm. Euh, Lamine Golo dafa ne woon. Youssou Ndour bu mu xeex Youssou Ndour ne ko même su fekkee une minute la may ma ko ma xeex ko caatu yoof mhm. Lamine nag nee na bëggu woon xeex bi mais comme que Youssou ñaan na ko. du mën ndax booy bi dafa baax du mën lu dul may ko ko lool mais xeex bi dañoo gis ne enjeu wul Youssou Ndour. dëgg la mais làmb ji boo seetaanee bu fekkee da nga xam làmb. soo seetaanee da ngay xam ni <clears throat> Youssou booy bi bi muy départ di ñëw ci Youssou. boobu Youssou dafa taxaw sigi joon daf ko bett. te loolu waa daf ko bett quoi te loolu mënul ñàkk si làmb mais mbër mu concentré wu di lewaatoo adversaire am mhm. adversaire am war na koo mën a bett non dañoo léew dañoo léewtoo ñoom ñaar dem lu topp ko ñu dem bi biñ demee ba ñëwaat di taxawaat ba taxawaat ci léewtoo bi ñuy léewtoo la ko xama booy bi moom noonu lay xeex noonu lay bëree ma yaakaar Youssou moo woote xeex bi <coughs> non booy bi moo cokkaas moo départ di ñëw Youssou dem di ko song ci booy bi dajeeg moom ah. mais noonu la waroon demee gis nga làmb ji. mais mais bi Youssou jëlee coup bi. ma yaakaar dafa doon taxaw wala bu reculer deux pas dafa taxaw mais Youssou su nekkul li mu arrière moo bëri ba amatul équilibre. Ah, non non mooy bett bi bett am na nit nu muy bettee ci yow rek su la coup bi laa rek yow noo daw ba jekk rek ngay bëgg. lii daal Youssou daal bëri na fi ay combat ñu jekk ko ba war koo daan sax mu daan. exemple lu ma lax yooyu yëpp. mais su nekkul tamit est-ce que nekkul tamit caatu yoof da leen mën démb. non non waaw moo ñu mën parce que moo ñu daan. micro bi. moo ñu mën parce que mooñu ñu daan. ñu ngi koy ñaanal ndam li yàlla na ko jig waaw. mais man leer na noppi dafa ñëw taxaw ne dama am doole. dama am. dama am waaw mais ku daan def lu la neex. làmb noonu la làmb tey jii boo daanee kay du la neex ngay def ñun daal xam nga félicité nañ caatu yoof yàlla na ko ndam li ñun ñu ngi dem liggéeyi waat di xool nan lañ mën a trouver pour woo xoolaat beneen semaine ñu jaar ci. lan ngay wax Youssou Ndour. non Youssou Ndour li ma koy wax mooy fi mu teg tànkam nii bu mu ko dindi combat bi entraîné na bi mu sumee koo Youssou gisoo mu nekk ci forme. entraîné na jox lamb ji àqam. mais yow suñu borom yow da ngay jaam da ngay ñaan yàlla kee di ñaan yàlla suñu borom lii la dogal ci Youssou Youssou mooy kan ah Youssou Youssou Youssou nit la rek di du yàlla ngay ñaan fii loolu rek moo fi nekk leneen nekku fi yàlla moo fi nekk ñi ngi koy ñaanal nag ndam li yàlla na fi gëj noonu la demee man nag Youssou pare dama dama àndoon di préparer combat mais am na ay xaritam yoo xamante ni ñoom la nekkal ñu ko gën a jege soo gënee laaj ci Youssou ñooñu dina mën a xuus si ci biir Youssou carrément mais Youssou ñoo ànd entrainement combat bi ñoo ànd lépp man a moom combat bi man de barka arxuraanu kërim combat bi ndesee une semaine dama ko waatal ni ko waa bu fekkee da ngeen di bëre du la daan ci bëre. foo tegoon loolu. ndax li mu liggéey Youssou musul paree combat nii combat bi dafa nangu luñ ko tegoo teg na tegu na ko mais suñu borom mooy dogal. mais avant combat bi su mënoon naa am ndam am ñu bëri ñu si wàññeeku wala ci boppam moom mu dee. loolu lan moo koy jar làmb nii la làmb dimanche ju nekk borom moo ko moom ki ko moom moo koy moom. combat bi defe naa ne defe naa ne sama plateau la taxawee. bi mu leen fa invité. waaw waaw caatu yoof ne ko. waaw bi yàgg nañ ko dox. Mhm. mais lamin Golo moo la teewoon jël combat bi. Mhm. ndax Lamine Golo moo ne ñemewu ma. ma woo Lamine Lamine ne maa ko teewoon jël bi waaye fi mu toll nii maa ko libéré na ko mu dem jëli combat bi. Mhm. ñu gis démb lamin bi mu ñëwee andi na ay butéelam teg ci cumbukaay teg ci seesam bi yuusu sottee ko ba ñu yaakaar ne butéel yi jeex na Lamine ñoo taxaw andi ay butéelam démb. wax mais loolu la rek Lamine lépp yéene la rek. gis nga dinaa la xamal benn affaire. Mhm. dinaa la xamal benn gis nga Youssou nit la koo xamante ni nite na nit ku nite la nit la te loolu rek moo am solo ci nit nit nga nite moo am solo ci nit mook ay xaritam nañ mel ni ñu meloon ñu ànd dem liggéeyawaat parce que ñoom ñoo liggéeyoon ba toll fii ci làmb nañ liggéeyawaat xoolaat beneen semaine ñu jaar ci pour taxawaat loolu moom mooy wax ji su fekkee ci wàllu leneen na nga may laaj ay xaritam a ngi nii. ñoom ñoo xam ci loolu mais bu dee préparer combat pare si combat nekk si combat préparer man ak moo ma ko doon préparer ak ay xaritam fajar ñoom ñoo may jël si gàddaay dem Tivaouane Peulh suñ fa jógee ñooy dem saal dem lépp ñoom nag ay gaayanam lañ jox leen ñu wax ñoom ñoo ci ñu gën a kii